Heavyweight.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 naal étranglé leen ndax bëgg-bëgg yu dul jeex changer meuble xar yére dal mees saa takkaay mani tarafatal ay nit duñ ko bàyyel seen borom kër ak jamonoy corona ju metti ji nga xam ni poos yépp vide waa ji nag li ko dal metti na dudu ko du jóob di ab jaaykatu xar mooy netti li nee waay moo ñëw gaare otoom ci géttam yor cinq cent mille bëgg xar ne mu proposé ko xar buy tolloog cinq cent mille waa ji xeeb ko ndax yaakaar ne bu yóbboo xar ma kër ga jabar ja da koy xeeb biiri waay waay kii ñàkk fulla ci la waa ji xoolee beneen xar buy jar un million ne moom la bëgg ay waay boo demee mooy góor ñi ragal seen jabar rek du ko du job mi jaaykatu xar mi ne xam nga sa waay nu mu mujjee def moom daf ko tayle oto bi mu yoroon ab Kia Sportage bu bees peq ëskëy sa waay ne mu nangu waaja mujj jël xar ma yóbbu cey mim réew ma ne xanaa yàlla newul mën ko def ko tële ko bàyyi ko waaye nag Sénégal li lépp li ko waral mooy bëgg bëgg gis leen ma concurrence wujje indi kuy wutal ni mam jog leen ngaay soxna si jaagar-jaagar yi di tiitaru ci ay digg nawleem fu ne mu dem woote fa naan ñëw leen gis li ma sama góor defal fekk booba nag sa góor deena góor ñi rek a son réew moo xam ne wujje jaayante maana kenn du def te yàlla tax ma ne nii rek moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca Sacré-Cœur ñaaw na ba fu ñaaw yem ab jigéen waañ bu ñu njort ne da doon sàcc la ñu fa jàpp toroxal ko ba mu ne tot ma image yi boo ko seetaanee foog sa xol bi jeex takk ne lii nan la mën a xewee ci réew mu mel ni Sénégal waaw jigéen boo jàpp ne daa sàcc ripostewul amul doole nga yeew ko tëral ko di ko verbaliser ak ay kaddu yu ñaaw di lambatu ay weenam waaye bon waay ñu naan deeta waay ngeen filme ko ba image yi tas ci àdduna bi yépp non sama xol bi jeex na takk toroxal jigéen gi nag ma ne ñi ko def dama yaakaar ne amuñu nday amuñu ay sër koo jàpp kay ne daa sàcc yóbbul ci yoon waaye nag mi léegi ku nekk kay jóg bëgg a sa bopp li ci gën a doy waar mooy nee nañu soxna soosu àndul woon ak xelam moo tax woykat ba woyoon na ko gaawtu baaxul waaye senegal ngay gis wuub sàcceey rek gaa yi fox ñi ñii gàddu ay kuur ñii ay yat ñii ay peel ñu tiim nit di ko tortir de mel ni kuy ray kaña moo tax réew mi léegi nit ñi dañoo dem ba xamatuñu valeuru nit yàq nit toroxal nit weer nit loo xam ne mala yi sax jomb nañ ko def seeni moroomu mala te nag violence bi ñuy teg ci kaw jigéen ñi ëpp na laa wax li gën a metti ci vidéo bi nag boo koy seetaan dafa mel ni ñuy def yëf yi ab mala lañu tiim rek di def leen neex ay ñi ñàkk yég yëg waay waaye tamit ki publier vidéo yi kenn demul mu des ndax kuy sàmm ak ak yelleefu doomu aadama est-ce que war ngaa wasaare luy toroxal te doomu aadama moom a jaaxal de waaye nag réew mi léegi ñéppay joxe information lu ne lañuy filme ay néew accident nit ku ñu faat nit ku tàggoo xelam lu ne lu ne dañuy fowee image nit ñi laa wax lii dëgg nag mooy ñi doon torturer ndaw si moom dama leen a bërgal ay mala saxaleen tane te yoon na ci def liggéeyam ba mu sës waaye nag ki publié bi ba mu tas ci àdduna bi yëpp ko doggali ndaw si laa waaw jot nga vidéo bi ni mel yaa xayti kay yóbbul jëbbal yoon bàyyi yoon def liggéeyam waaye jël image u ne ko tay ci adduna bi mu nar ko topp ci dundam ba faw fu ñu rëkkee ndiggu ko tortiré benn yoon war faa rëkkee sa ndigg fukki yoon laa moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa la xew ca Cap Skirring doy na war ab réseau de trafic de drogue bu mag la fa OCRTIS démantelé waaw góore waay réseau boobu nag ab journaliste buy liggéeye ca rajo local ba la ñu njort ne moo jiite yëf ya nekk ca bopp ba pëtëlëw ma ne nee ñu ci oto journaliste boobu OCRTIS fekk na ci ñetti kiloy drogue ñu teg loxo waa ji ci waxtu wu muy livre ji drogue bi ay client am pop pop pop pop pop gang boobu nag gannaaw ba ñu leen placé garde mujj nañ leen defeere moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax la xew ca Tuuba doy na war ab góor gu am soixante-cinq ans di wuyoo ci turu Saliw Caam la ñu fa teg loxo lu ni mel nag police a ko def góor gi nag ca këram nga nekk ca quartier Madiane 2 police fekk na fa téeméer ak fukki fetal ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaari balu fetal te ci balu fetal yooyu ñu teg loxo juróom-ñeent fukki ak juróom-ñett yépp ay balu fatelu guerre lañu ëskay góor gi nag polis guy mbind ak ko teg loxo moom góor gi Saliou Thiam moomu ñu fekkeek arme yi nag bi ñu ko tegee loxo nee na ab waay bu ñuy wax seexloo moo ko jox arme waaye seexloo moom weddi na tuuma yi góor gi teg ci kawam nee na ba mu xamante ak Saliou Thiam yàgg na ak léegi at yi toll na ci fanweer góor gi Saliou Thiam xaritam dëgg la ñu defandoo lu bari waaye nag tuuma yi mu teg ci kawam dara du ci dëgg mësula jaayaar tey masu ko jox ay arme Cheikh Lo nee na moom daal li mu doon def mooy ay recommandation ak ay conseil la doon jox ñi doon ut arme te it nee na amoon na attestation de détention d'arme boo xam ne ci yor arme la yem waa léegi nag laaj bi ñuy samp mooy góor gi Saliou Thiam moomu kan moo ko jox arme yi ak fu mu jëlee arme yi ndax ma ne réew mi war nañoo xoolaat bu baax a baax a baax li fii xew yàggul dara pekes jàpp nañ fa ay arme insécurité baa ngi dugg ci biir gox goxaat yi di leen bëgg a moo tax li ñu war a liggéey bari na mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz.